waaye Fadam ak Ama Baldé tey parce que pour Ama Baldé Modou neex Ama Baldé Modou pour mu neex faaw Gris Bordeaux Ama Baldé am fu mu jaar ak Modou li nga bëgg wax mooy pour Ama Baldé Gris neex Ama Baldé pour mu neex il faut Ama Baldé toog ci kaw dënd Gris Bordeaux ndax Modou kat ak la daanee Gris kon Ama Baldé dafa war a toppi na Gris Bordeaux loolu lan moo koy may lan moo koy may. Euh, Ama Baldé combat bii mu jëm day bëri day bëri combat boo xam ne nii ñett yii ñett yii na ko Ama Baldé uti bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Mm. yan ñett mooy Ama Baldé il faut mu yéeg li des ci combat bi da ko war a yéeg diin. waaw yéeg yéeg giin ak sëfu du benn waaw combat bi Ama Baldé dañu war suuf ci mm. diin bu baax a baax a baax a baax xam nga tax loolu mm. Gris Bordeaux instant yii moo gën a lànk sa Ama Baldé Gris Bordeaux moo gën a lànk sa mm-hmm. Ama Baldé si gin gën a mm-hmm. lànk sa Ama Baldé il faut Ama Baldé lu ko jëlee ci ay dóom jëm ci ndiggam jëm ci crise derrière bi il faut Ama Baldé ak Gris il faut mu sàkk ci diin ba yëg ne moom mii yëg na diin mais yëg diin boobu da ciy sëfoo mm. bu ci sëfoo dina ci jël charge boo xam ne nii dina am doole doole boo xam ne nii bu ko boolee contact mm. bu yaram bi loolu tasee ci yaram bi dina am mobilité boo xam ne nii bu jëlee ku ci Gris Bordeaux sax du ko tee dem mm. ndax Ama loolu xaj na fi xaj na fi ci ci ci ci des un mois et demi des ci combat bi xaj na fi bës fii may wax ak nii fii may wax ak nii Ama Baldé commencé naa yéeg diin information boobu jot naa ko te na commencé naa yéeg diin. Ama Baldé. Mhm. commencé na. dëgg la. fii may wax ak nii Gris Bordeaux combat bi ñaar ci soxla confort la ci soxla ak mobilité confort mobilité ci soxla. Mhm. ndax Gris Bordeaux fu ko Ama Baldé di mhm. li ñuy mën a xeex xeex ci làmb fi li Ama Baldé di préparé bis bu ko fekkee dina ko daan jël boo xam ne ak une kon Gris Bordeaux mhm. lu mu mën a ut ci mobilité ak résistance da ko dëgg ji ndax koofam bi moo koy may bu Ama Baldé dalee ci kaw mu mën ko résister mobilité bi moo koy may bu Ama Baldé jógee mu mën ko fa fekk waaye saa yu Ama Baldé jugee fekk fa Gris dina ko daan ci génn boo xam du àgg une minute Gris nag fu mu dugg Ama Baldé ko lu yomb la ci moom ba dafa am mooy na nga mu duma Ama Baldé mooy plan A bi mu loolu mën a nekk la mais plan B bi ba léegi moom a jaaxal ci Gris te plan B bi ko no Gris moom Gris ku ne xam na man si sama xalaat hmm. Gris ku ne xam na plan A ak B ba mais li tax ma reetaan lii hmm. mooy da wax ci Ama Baldé lu garaaw parce que da nga da nga moytuloo Gris benn mbir moom mooy Gris na liggéey entre na liggéey coffre ak mobilité parce que mobilité bu bëri dafa laaj coffre saa yu mobilier lu bëri il faut que coffre bi nekk fa parce que da ngay gaaw a somb waaye nag Gris warul toog ci trajectoire Ama balde ndax Ama Baldé ku toog ci trajectoire moo la mën Ama Baldé nekk na mbër bu xam moo ëpp lecture de combat ci làmb lecture bu muy am ci làmb lecture bu doy waar la boo xoolee Ama Baldé dafay wane ay faayu mbër wala boog dalay fekk sa point fort nga def sa point fort mu dindi la daan la ci bu njëkk ma la doon bëree xadar comme digganteem ak ay guy gi digganteem ak ay nees mais boo xoolee ñaari defet yooyu dafa am lu mu def ci moom ba nga xamante ne moom lu war ci làmb ji pour am ci ndam la ciy def ñëwatul pour humilier la ñëwatul pour duma la moom dafa ñëw pour daan la kon li nga xam noonu Fadam da nga da nga am raison totalement mooy Gris Bordeaux war ta xaar Ama Baldé teg ko li mu bëgg parce que saa yu ko Ama Baldé tegee mu bëgg Gris hmm. li gën a mën a ci làmb la ko

ñaar ba ñetti combat lay seetaan rek benn com benn bi moom mooy plan A ba mooy day xeex ak Ama Balde bu xeex ak Ama saa yu touché wee Ama da koy yeggali ci bëri wala mu yeggali ko ci xeex yeggal ci bëri bi nag mooy comme nu mu def Tyson rek daw plaqué ji yeggal ci xeex mooy continuer xeex bi ba Ama génn mu fexe am ci dara loolu mooy plan A di ci làmb jëm arbitre ne prip mu xool Ama Balde te la muy xool ci Ama Balde Ama Balde dina ko defal mooy ci nëkk atam boobu tànk droit am boobu mi tànk boobu mi jiital wala Ama Baldé di jëm hmm. hmm, hmm. si te Ama Baldé coup bi mënu ko màttee ak léegi nag Gris Bordeaux bu dóoree Ama Baldé crochet droit mu dal ndax dina am mobilité bu mu songu jee Ama Baldé jëli ji ko foofu la combat bi nekk. moo tax waaw. loolu la combat maa ay lacrymogène yaay xeeñ fii de. moo tax maa ngi naan gars yi waaw. alaaji Fadam. alaaji Fadam waaw damay damay tàggoo benn affaire parce que li ma jaaxal suñu kër gi dañ ko ubbi yëpp mais ay lacrymogène ñoo may xeeñ dama jékki-jékki sànq ba léegi mu may xeeñ mais dafa commencé yokk xaw ma nag te man sama koñ bi fii dara amul dara xewul xaw ma lu muy demee affaire xeet baa ngi yegg si <laughs> ah li may mooy plan B xanaa giri seetaan nes ak Ama Baldé wala guy geeg Ama Baldé mooy sëf combat bi Ama Baldé compté ci poids am yaakaar naa loolu plan B bi mën na nekk mais combat bu neex la combat bu métti la combat moom ñu ngi ciy encouragé Ibrahima Diop bu baax ak yow mi itam am yaa ngi ci liggéey liggéey bu am solo ci live yeeg yooyu ak di di yemale promoteur yëpp nag promoteur bu ci am bés fadam yaa ngi ciy liggéey man dama lay félicité wax dëgg yàlla ndax yaa ngi yokk làmb bu baax tax nga kenn wéetatul ci live yeeg yooyu yëpp tax nga vraiment indi nga beneen facette ci làmb man ma jóg ci di la félicité ci facette bi nga xam yaa ngi koy doxal ci làmb ni loo woote kenn ku ci waaye lu mu waaye di mënti liggéey ci làmb yow façon bi nga koy liggéey uti naag façon bu ko euh, bu buñ koy liggéey ñun donc ñu ngi la ci félicité bu baax alaaji Fadam di ñaan ci réew mi jàmm lu Gris Bordeaux waxoon rek Gris Bordeaux waxoon na ko keroog ci conférence de presse bi ci bu muy tàggatoo mu ne tey jii euh, bu ñu buggee jàmm ci réew mi jàmm dina yomb mu am dëgg yàlla bu ñu bëggee jàmm ci réew mi jàmm dina yomb am wax dëgg yàlla <laughs> waaw réew mu daal na ci na ci yàlla def jàmm te pour jàmm am daal wax dëgg yàlla ñu ñëpp yéenante jàmm ah ñu wàccee coow yëpp ci suuf yaakaar naa loolu bu amee jàmm dina am. jërëjëf jërëjëf Alaaji Fadam waaw parce que lakk moseen yaa ngi xeeñ fii quoi. <laughs>